asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne ji TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey nag dañ leen a indil gént tan tan nag ñu bari dañuy yaakaar na rek say foo ko gis rek seytaane la waaye am na gént koo xam ne mën naa taxawe kilifa mën naa taxawe alal alal ndax bu dee borom donc yépp ñaare am na foo xam ne bu fa taxawee dana tekki alal gént tànn dugg sa am na foo xam ne seytaane la am na foo xam ne it kilifa bu fay ñëw la bu fekkee danga ko faa gis gisug raglu gisul rek lu moy gis goo xam ne dalay tiital wala boog ci gént gi mu lay dàq loolu mën naa tekki seytaane bu la topp waaye bu fekkee dang ko gis sa kër gis goo xam ne du gis ak raglu mo taxaw taxawaayu kilifa loolu dana tekki ganu kilifa gooyam dana tekki ganu kilifa gooyam ba tey koo xam ne danga gént di dàqatan ba jàpp ko loolu dana tekki alali kilifa jooy jot wala alal ju rëy wala aajo ju faju wala looloon sàkku di ko jot ba bu fekkee koo xam ne danga gént di rendi tan bu fekkee koo xam ne danga gént <clears throat> di rendi tan loolu ñaare bu fekkee koo xam ne koy liggéey tasxiir la rawatina muy tasxiir ku mel ni kilifa dana tekk ijaaba dana tekk ijaaba ñaan gu nangu dunqitan donc itam moom it alal la buñ la ko joxee wala boo ko jëlee ci tan maanaam di dindi ay donqam ba tey jariñ loo jële ci kilifala wala alal dana tekki loolu tan tamit am na foo xam ne dana tekki ay rawaan masalan ismu jalaal am na rawaanam yoo xam ne buñ lay feeñu wala lamu mu xan a jaxalin ñaar ay tan yu rëy rëy dañuy doon waaye dañuy nekk tan yoo xam ne ñooy ëpp suñ tan yi loolu rawaan dana koy def ci yenn tur yi rawaan dana koy def ci yenn tur yi ba tey ku gént di fetal tan maanaam di ko tiire ba jam ko loolit it ñaan gu nangu la ak loo doon sàkku di jot eh, loo doon sàkku di jot kon ba tey ku yéeg ci tan mu naaw ak yow jëm asamaan wala mën naa nekk tukki mën naa nekk ak yëkkatiku waaye bu fekkee koo xam ne dafa feebar loolu moom baaxul ci moom loolu baaxul ci moom ba tey am na foo xam ne mën naa tekki seytaane masalan koo xam ne ay tan jën ko wër waaw mu ne ci digg bi amul fu mu jaar ba génn loolu tegtale tegtale na ay pexi seytaane yoo xam ne dañ ko ndar képp kon mbokk yi lii daal ci gàttal ab tënk la ci tan xam ne boo ko géntatee danga ci am junj incha allah di ngeen woy di abonné ci chaîne bi ndax bokk ñu ci li koy dundal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh